di sant yàlla bu baax di julli ci wi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi wax jëre jërëjëfe Sëriñ Tuubaa Moussa xam naa ko ñoo dëkk Bawol mu nekk leader bu am jom bu gëm boppam wallaahi asim yàggul rek ñi ngi dajee Tivaouane Peulh ñoo yendu foofu ba ngoon di waxtaan ci lépp ma xëy rek ñu woo ma ne ma Moussa décédé na man yëgu maan benn feebaram wallaahi lazim donc kon dañ koy ñaanal rek ci barki Serigne Touba yàlla yërëm ko te xare ko ajana di ko jaale nag ñi nga xam ne xam naa ko ak ñoom ku mel ni Bada Jonn ku mel ni Cheikh juuf ak waa Réfane yëpp ay wulli ak euh, yaawu jàll bu Moussa Dioum ak benn waay bu ñuy wax Mercedes ca États-Unis di ko jaale diaspora bi yëpp lu metti la ndax gone toll ci buntu àddunaam buntu wutam buntu ndawam xëy rek décédé lu metti la mais nag suñ borom moom lu baax rek la bëgg lu baax la soxla ni ko nit ñi soxla noonu la ko soxla donc dañ koy ñaanal rek yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ak Seydina Mohamed vraiment neex waaw li ma gën a fàttaliku ci moom euh, am na ñaari événement yoo xam ne dama ko suivre muy kombaam ak euh, Dunxaaf dama topp komba bi ba ndax jour wala ma waroon a gont dem Touba lamb ji daa jeex rek stade laa jóge dem Touba bi mu koy door mu daanu biñ jógee ci loolu euh, trent 37 am na mbapat bu mu fay daan Gris maa ngi toog mu nekkoon xele bu ës parcelle ba nu daan wax làmb mbër Moussa Dioum la ñuy njëkkee wax donc ma koy jaale aussi euh, ngor gi mu doon sàmm ci diggante Modou Lo ak Papa ma xam ko maa ngi ko maa ngi leen koy jaale muy Modou Lo ak Papa Sow donc nit ku fonkan boppam la am na fu ma teg fu ko gisee daf ma jox cër ñaari loxo nuyu ma wallaahi asim te nit nag boo amee fu la teg da ngay am foo ko teg am na yëg-yëg ci doomu aadama te man loolu lay àndeek ak nit wax ji du euh, ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. yan hmm. waa tout le temps dama koy wax mu neex mu naqari yàgg-yàgg dañ koy ci ay nit lay mujj donc nañu bi amee ñëpp booloo mitil lu ko kon nan booloo xol yi doon benn li jiili am mënuma ma koo xañ li ma mën a war a am jiili mënu ma koo xañ mu rafet mu ñaaw ci ay nit rek lay mujj kon nay rafet jërëjëf jiili. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, Moussa moom bu may wax ci moom sax xam naa ne li may wax dama koy tënk rek parce nekkoon na nit ku baax man ak moom euh, dafa yàgg depuis may nekk parcelle. mu nekk nit ku baax mbapat bu Moussa bu ñu organiser fii man maay ñëw man maa koy woy su ma fekkee si su ma gisee dafay kontaan bi may mujjee gisee ak moom estade la yàggul sax maa ngi koy way noonu mi ngi ñëw di bàkku di fecc ñëw may ma xaalis boobu laa mujjee gisante ak Moussa waaw mu nekk nag jëmm ju baax fu ma masaan taseeg moom bu nekk lu baax la may xelal lu baax lay wax ci man te saay bu ma ko gisee man tamit lépp lu may def dama koy bàyyi ñëw taxaw si wetam luy ko ba pare taxaw di waxtaan ak moom ma koy ñaanal aussi yal na ko yàlla xare àjjana dëju Moussa moom wax dëgg yàlla su ma fi ñëwul rek gorew ma parce que teewoon na ma bu baax nag wax dëgg yàlla jox ma cër tamit fu ma gis dafay kontaan man tamit noonu damay ñëw di nekk ak moom mu may mu may conseil lu nice loo xamante ne comme sœur ak frère am ma koy ñaanal yal ma ko yàlla xare àjjana firdaws a mën ko waaw benn jour dafa taxaw di waxtaan ak man wax na ba pare sax mi ngi maa ngi naan ko yow mënoo maa bàyyi xanaa mu ne ma duma la bàyyi de bala ma laa bàyyi damaa ñëw ba sa kër bu soobee yàlla ak yonent bi lii ma la wax nii di ko def mu doon nit koo xam ne nag daawul tàqale benn yoon boole la xam boole hmm. fu ma gis ndeysaan li ngi nekk di may mbalak di waxtaan ak man mu nekk nit ku baax barki Serigne hmm. li may wax nii nag du hasard hmm. moo tax ma ne tey Moussa dëjëm man maa war a jiitu sax ndax nit ku baax la ku ma joxoon cër fii amul parcelle làmb mbappat bu fi daawul am te nekkul ne maa koy way képp ku koy way man maa nga ca ci laay bokk ndax lan jëmmam moom ndax bu gisee sax ku doon tëgg fii ay programme danaa leen nabu yaa nañ ko woo nangam mu nekkoon nit ku ma jox cër nit ku baax tamit barki Serigne Saliou deewam moom wax dëgg yàlla metti na ñëpp nag metti na ñëpp parce que nit ku baax dem na nit ku am kóllëre dem na ba ma xamanteeg moom ba léegi musuma gis lu ma naqari ci Moussa yi voilà ko yàlla xare àjjana xam ay xarit keus ngeen ay wëlëra ngeen àdduna Moussa ak yan lan nga ñu a seedeel ci ki nga xamante ni dem na muy Moussa waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ngi nuyu yéen kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di bu pare na di leen jaale Moussa Dioum di leen ko wax sigi leen digaale ndax kenn ku ci nekk rek mën na ko jaale Moussa Dioum bu may wax si moom fii ba suba du ma fi jóg mun naa ci wax lu bari mais avant loolu dañ koy ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal moom fi mu jógee yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xaare ko àjjana yàlla na suuf sedd ci kawam waaw li ma xam si moom bëri na mun naa wax ci moom mais jarul muy bëri kom comme dañoo nekk ci dëj waaw Moussa dafa nekkoon nit ku oyof nit ku deful dara muy dara maa la wax nii nit ku dara saful du xaalis na du succès nit mooy nax nit mais yàlla kenn mënu ko nax xoolal li fi ñëw tey xoolal li fi ñëw tey yàlla mooy jël nag moo ko jël du ma fi bàyyi du la fi bàyyi du fi bàyyi keneen mais nit ku nekk rek xolom la ko yàlla di fay am nañ ci moom yaakaar bu baax. génnam ci la la fekk ak noo tëdd di nelaw. Hmm. une heure matin ñu woo ma. Hmm. parce que ki ma woo une heure matin xam sama diggante ak moom moo tax mu woo ma parce que da koo foogoon poisson d'avril. Hmm. nelawaatuma ba ni ma xëyee dem liggéey mu am lu ma bett lool ndax man. moom nee na ma moom dafa yaakaar ni poisson d'avril la. Hmm. moo tax mu woo ma pour confirmation. Hmm. ci diggante bi may woo la ma keneen di woo ci suuf. jëlum woon appel yi sax ndax gis naa ko muy vibrer jëluma ko mais comme dama tëddoon ma xool heure bi mu guddi ma ne kii di ma woon ni wooyewu ma jàmm ma wuy ko waaw mu wax ma ko bi ma ko waxee keneen woo ma ci suuf. moom bu muy coupé laa jël kooku tamit kooku tàggee ma ko kooku mu nekk ko jege kooku tàggee ma ko mu doon lu diis lool lu métti lool mais nag yàlla kenn mënul xëcc ak moom. Hmm. yan kàddu la la mujjee mu mujjee dénk mooy ci kàddu làmb lañ doon waxtaan rek. Hmm. ci combat Sa ak Moussa Ndoye. Hmm. waaw boobu kàddu loolu daal jàpp naa ko si moom. looy laaj na ko làmb ji loo mooy daal loolu laa mujjee jàpp mais leneen li doon nañ déggante. wala ñu daje ci koñ bi toog waxtaan mais nekkul woon wax boo xamante ni day nekk day nekk mu nekk wax bu amu am xol souvenir mun naa ko jàpp waaw bon nag moom don na feebar mais tamit dama jàppoon ne ay feebaru comme feebar la nii rek xam nga feebar ak deena dafa sori waaw noonu la demee quoi mais sant yàlla rek sant yàlla parce dee du jaas waaw dee du jaas da feebar ak dee na dafa sori dafa sori wutewul dara nit mën na feebar suba mu dee nit feebar na bañ yaakaar ne day dee suba mu dem doxi soxlaam waaw kon yal na yàlla dolli sutura waaw mbokkam ak njabootam yal na yàlla mooy xolu muñ waaw sant yàlla nag parce que boo gisee li fi ñëw tey rek nga xam ne que ni Moussa jëf na fi jëf bu baax parce que koñ bi ñëpp ko jooy ñëpp a jooy jërëjëf ci témoignage